rappeurs yi sax ci Amen. عن كل Amen.

Jesús, Yeah. ولني لم يدنا من قبلنا على الصراط المستقيم قبلنا ولني يردنا من قبلنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا وجه لنا سوات دين فارقا ودفنا إلى ما وبارقا وبيننا وفيما أولادي يا مالك العباد والبلاد موسبا بخيرات بدرنا أنا السجيد يا خالق الكبار وجملة الصغار أنت الباري ما لنا زرية تديم على ملا زارع على قديم ما لنا زرية تديم على ملا زارع على قديم اليوم واليوم بخير سيف قد أتى بمددي أفاكم بسكر سيف المهدي المالك المكرم مدهدي فارس عينكم من منتي نجا بما يديم خير سدتي فارس عينكم بالقرآن منتي نجا بما يديم خير سدتي فارس عينكم بالقرآن منتي نجا بما يديم خير Shani to بن Al-Khraib, Minda ki adhe offerings to Sunni sir blae Thank you so مسيرا لأسر الملاي لو توجهت محق جالي مسجدا مصحزه أوجال لو توجهت بمن قد صبروا على الإله ومن سواه هبروا هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا الهدى جهاد واحدا حكما بالعف والغفران إسقاط الهداس بالنصران لو توجهت بالابتسام وكرموا بحد من حسابي ردي عنهم مكرم غفور استوه باسمي ذوي النفور حتى الكريم الحياة هم وساق لهم الحكايا من أمني من البداية بهدري فهو مبارز لأهلي بدري أكرمني الله بكوني مي وليس لي في خيره من مدمي ناديت سبحانه وأبتدي منه تعالى فتح كل مبتدي أسأله وهو رهيم هندي جملة ما مني بدا فهو مجيب لو تبرهي لو التجاهي وارتدي يوم الهدى هوجاي رجوت من رب رحيم كان لي وقادني له وسعي سالني حوزي في الدارين ما أشاء بكوني يخلق ما يشاء يسوق لي منابل اعتسابي كما لو كل اعتساب مصليا على النبي محمد وآله وصحبه وأمته مصليا على النبي محمد وعلي وصحبه محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لله حمدي ما سقي أبدا مسليا على النبي أحمدا لله حمدي ما سقي أبدا مسليا على النبي أحمدا يا أيها اليهود والنصارى بارست منتقما جبارا سبحانه وهو الحليم وصبور بهلمه بارز كل كفور أتاكم التوراة والإنجيل وفيهما تكريم وتفديل بما به أزاكم المفضل بما به أتاكم موسى والمصطفى وما به جائزا رجاه جنة بلا تاتي بسنة ما يكون ياتي رجاه حب الله ما بدي رسول صفات ما هو وفور إن محبة الإله لا تنال إلا يخفي مصطفى باب النوال الإسلام من سياقنا أق تبان أق kimo dana ka sumu fi jang damay jang yeen ndax seigne touba do dama boole yeen to du mbokk waaw dañu lu yàgg ndax li ñu boole yëpp dañu ah yàgg ko ànd mooy xaside yi te loolu dara du ko fiti ko waaw moo tax te it saa bu mu teewee cër gi ngeen ñuy jox sax wax dëgg yàlla yelloo waaw ndax jiite kuréel jiite njàng wax ñu ñu da ngay wax nit ñi topp ci boo deful nànk nag da ngay sax yaa leen féete kaw ci ku gàtt xel wala yaa leen ko dàq naa naa la wan ñi daal déedéet te du loolu tàmbali wax la rek nit ñi topp ci ànd ànd ko yow moo tax lu di tàmbali ba nit julli sax booy taxawal ci kan di jiite sax boo gàttee xel te ma jàpp yaa gën ñeneen ci ginnaaw loolu képp ku mu daal nag xamoo àqu julli sax xamoo xamoo àqu jiite ndax jiite moom yombul suñ ko naan képp koo xam yaa ngi jiite nit ñi dana maanaam say ayib dañ ko nëbb nit ñi xamoon ndax as moo jare ñaar nit daa fay nit daa bëri ayib waaye yalla sang ko malaanum sutura muy teur bi di teur yi di tasbir yi ngir yegg ci yalla ngir mën am defal su boba nga say ay do gis do gis sax ay ay do ko xam kon may bëgg bu guddal ndax xam na ni yéen xam-xam bu xam-xam yaangi fi ndax ma ngi ni seen waye ma ngi ni di siyaare wax bax ak seen waaw incha allah baax di ñaan ñu ngi jàng ci teewaayu ñëpp waaye am na ñoo xamante ne kasaaya ko mënul ñàkk ñu tudd leen ki ci jiitu wax dëgg yàlla mooy suñu jëwriñ suñu magu taalibe bàyyi ko dëgg yàlla teewee fi teewaayu sang bi Cheikh Moussa Touré ñu koy ñaanal yàlla yàggal ko fi ay cëram bu baax mu ci kanam muy suñu jëwriñ suñu magu taalibe Seydina ñëw fi teewaay teewee fi teewaayu sang bi noonu la ko baaxee def noonu la ko baaxoo defee si jotaay yëpp yi nga xamante ni Maslakul daal ñu ngi koy amal muy taw muy naaj mu guddi mu bëccëg lépp lu mu mën a doon mu ñuy gunge ci ndigalu sëñ bi kon moom it dañ koy ñaanal yàlla dëgëral ko bu baax sàmm ko buñ ci jógee sa suñu wayu jur suñu mbokk taalibe ba tey di Alioune Badara Cissé di suñu bàyyi di bàyyi ci daara bi ndax kóllëre moom it gi mu am ak sang bi nekk tamit kilifa ci yoon bii nga xamante ni ñu ngi ciy yëngu muy yoon murit xam naa ni képp kuy murit wala nga doon sax jullit nekk Sénégal fii xam nga kuréelu julli géej gi muy comme kuréel bi nga xamante ni moom la ñuy def ñaari rakka yi fee ca Ndar di ko fa màggal am na beneen kuréel goo xamante ni ñu ngi Ndakaaru muy kuréel gi nga xam ne ñoom ñooy seetu julli géej gi julli ga nga xam ne moom la sëñ Tuubaa julli woon ci géej gi muy le septembre saa su nekk ñu koy màggal yàlla moom la dogaloon mu nekkoon président d'honneur kuréelu julli géej gi daanaka da nekk ba keroog ba mu ñëwee fii di seet suñu waajur dafa ni moom sax dafa mujj bëgg ko jox sax kooku ñuy wax Pedro di doomu Abdou Diouf Matar Diouf moom moo nekk léegi président bi kon daanaka moom nit am na cër ci yoon yi ndax loolu duñ ko dénk n'importe kii waaye tey jii doo ko xamee si jataay bi ndax ak taalibeem ndax ak oyofam waaw waaye loolu rek moo am solo ndax lépp lu la waaye di jaay loolu taalibe yaakaar naa ni saa du yàgg mu ngi ànd ak soxnam di suñu yaay di suñu mbokk taalil moom di wóllare sang bi nga xamante ne sang bi moo ñu ne lépp lu soxna may mu sëriñ Saliou Mbacké xewle ànd leen ceeg moom wax nañu ko waxatuñu ko wax na ko ci mbooloo wax nañu ko ñuy dégg benn par benn mu nañu moom de sàmmkatu kóllëre la ku rafet xol la koo xamante ni akasaayakun xëy na sikkam mooy bëgg bëggal ñëpp te amaana loolu sax mënul nekk waaye mu ngi ci muy cant yi muy xewle lépp danaa bu kenn laal dara maska kurbu daal ñoo ñooy def lépp muy jëwriñ cuur nga xamante ni moom mooy baas lépp mooy moket foofu mooy indi suuna mooy def lépp soxna si muy ànd boo xamante ni tamit yàlla na ko yàlla dëgëral ndax ànd it bu dëgëree suñu borom moo si jàpp moom ak saa coful daara ji saa su daara ji xewlee bu ko fekkoon ci tukki sax dana bàyyi loolu ñëw te it ku am cër la moom it si yoon bi ndax ku ñuy woowee soxna may mu Serigne Saliou nga nekk soxna amaana njaboot Serigne Saliou di dégg bu xel comme xewlee nga def ay kaar dem cant boo wootee ne sëriñ Saliou nee na wala nga wax yoo xamante ni amaana bu doon ay waxu neen la amaana ñu gis kenn ku taxaw ne lii ak saa amul waaye nag moom dafa féetee wu Serigne nekk nag mbokk ci deret ci yéen jaxate ci tàllale sëriñ euh, soxna mam Fatou jaxate bu sëriñ saliw yaayu sëriñ saliw ci tàllale googu la bokk nga xamante ne mbokk la ci deret waaye sax teg na mbokk googu fee nekk ak taalibe di jëf ci yoonu murit di jëf ci maanaam yoonu murit yoon euh, jëf jur sell joo xamante ni ak saayakun ñun mën nañ ko seede kon moom it teew na si jotaay bi ñu koy dalal di ko sant ci teewaay bi ndax yombul jot amul bu ñu santee tamit ñooñu ñëpp dafa mel ni sant nañ taalibe yëpp ndax taalibe yi saa ñoom lu fi taxaw ñoo ko taxawal muy kuréel gi muy sikurulaay bi muy togg yi doon def muy lu ñu mën ñoom ñoo ko taxawal kon tamit sant nañ leen daanaka Mourtada daa am na sax ñeneen ñu ma waxoon ni naa leen sant waaye jàpp naa ne su ma waxee ñee rek ñëpp dugg nañ ci biir ginnaaw loolu nag noonu ma koy waxoon sànq si ginnaaw gannaaw jataay moom képp koo xamante ni teew nga fi war nga dégg loo xamante ni ak yóbbal lay doon ndax mënul ñàkk si jamono ji ni nga xamante ni noonu la jamono mel ak yàqu-yàqu yi nga xamante ne am na lépp lu mën a xew damay ne actualité bi wala li nga xamante ni moom lañ ci war a wax du lenn lu dul loo xamante ni moo war a saafara jikko yi moo war a defar xol yi moo war a tënkaat nit ñi yóbbu leen ci suñu borom muy xew-xew bu mu mën a doon moo xam takk moo xam ngénte moo xam dëj yàlla na yéex moo xam anniversaire moo xam lu mu mën a doon ordre du jour bi lenn la war a nekk muy nu ñu mën a saafare ruuxu doomu aadama yi yóbbu leen ci suñu borom te loolu kasaayakum du am mukk faw xam-xam amul kon loolu tamit damay wax ne ñi nga xamante ne ñooñu ko gën a xam dàq ñu ko leeral foofu ñu ngi fi ci jotaay bi dañ leen di bàyyi ñoom ñu ñëw laay biir jaam yi wax leen li nga xamante ni dëgg-dëgg moo sabab ñun suñuy jotaay moo sabab suñu ànd sang bi Cheikh Moussa Touré te loolu du dara lu dul xasaar diggante taalibe ak sëriñ muy lu lëj ci jamono loo xamante ni baax na di leeral saa su nekk kon ñi nga xamante ni ñoo fi teew pour leeral loolu suñu mbokk taalibe di jibi sëy nga xamante ni yàlla dénk na ko wàllu woowu moom it yàlla na ko yàlla dëgëral bu baax moom lañu fas yéene jox kàddu gi mu ñëw baaxee ñu ci xam-xam boo xamante ni akasaayatul moom mu mën a jëriñ doomu aadama li nga xamante ni dara war a ko lu dul mu ñëw ci kaw suuf sàkk ngërëmal boromam delluwaat ba suñu borom du ko jéppi kasaa ba am ngërëmam te loolu damay ne moom nii akasaa yàlla dénk na ko fasaa bu mu ko leeralee di ñaan yàlla nag ñëpp def ànd ak déglu ak dal ngir ñu mën a taataan ay kaddu su ci paree kasa xam naa ni dañuy delloowaat kaddu gi suñu jëwriñ suñu magu taalibe moom it teew ki teewal sang bi muy Seydina mu rotalaat moom it ay kaddu su ko defee ñu mën a ñaan ba beneen bés kon bàyyi ji bi ñu lay fas yéene jox kaddu gi. asalaatu wasalaam ala Seydina Muhammad ibn Abdallah wa alihi wa ashabihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din عن تراخي مسمد رحمن المؤمن المهيمن المنام يكفي البلاء وجملة الوباء وسوق إلى الأهداء كل داء عن تراخي مسمد رحمن المؤمن المهيمن المنام يكفي البلاء وجملة الوباء وسوق إلى الأهداء كل داء عن تراخي مسمد رحمن المؤمن المهيمن المنام اكفي البلاء وجملة الرباعي وسخ إلى الأهداء كل داي كون بوكي جولتي بوكي طالبي نعم يوح السلام عليكم دي نيو كل نكتي ترم أكي سنتم دي سنت بباخ بولم نفي تيو تي سن خادم دانا كا دي تي ماتونا ليرل تي اوبيكي matal na ko liñ ci tegaat rek mooy sant bu baax Mourtada Thioune mi nga xam ne moo waral daje bi muy jàmbaar lool te it ku ne xam pas-pasam ci daara ji te jataay bi jàngale na ko ndax bis nii am na ñu koy xewle waaye defin yi wuute na diko waral nak lu dara lu dul am lo yeb lu sa morom yëgul da fay wax ne ki se ressemble semble ñu nuro ñoo bokku ni ñi defé ba tax na ñoy and sax kon bu xewlee bis bu mel jël ben gi ba ci jeexital gi lepp dëppoog lu suñu borom gëreum dañ koy ñaanal pass bobu yalla baxé baaxewoo yalla ko yalla sammal te bu ko dara yàq abadan daayima waa kër gi yëpp dale ko ci suñu père Thioune ñu koy ñaanal yàlla yëkkati ko suñu yaay Mbaye jëwriñ Thioune waa kër gi yëpp ñu sant leen bu baax ndax kenn gu dëgër lañ ci daara ji di sant bu baax kilifa yi ngeen wax sànq suñu bàyyi Aliou Badara Cissé ak soxnaam soxna May wax dëgg yàlla seen kóllëre daara ji yàgg na te jéego yi ñu def ba fekk suñu fii tegtal na ci dañ ci barkeeloo ci kàddu yoo xam ne kàddu yu soñña lay te suñu bopp lañ koy tàmbale mooy tey li ñuy màggal dafa mel ni bisu juddu la te wolof dafay wax ne bakkan moom boo bëggee bañ koo ñàkk da koy fexe bañ waaye yàlla kum jox bakkan dana ko jëlaat kon kuy màggal bisu juddu na magale ko ni mi ngi baye xamne bis nga ñoo mu ñàkku lool nak warta yem ci kenn waye ku di nit war nga xamne bakkan bi ki la ko jox dafa wax ci alquran ne kullu nafsin zaiqatul maut bakkan bu mos dund dana mos def su ko defé nak bisu de nit ñi dañ ko ragal lool ba daanaka duñ koy waxtane sax te ak a waxtaane waaye nit moo dul dégg waaye saa su nekk lu lay fàttali bis bi sa jëmm jeeg sa ruug yi tàggoo mi ngi feeñ sa kanam boo dëkkee ak nit ñu tàgge ko war ngaa xam ne ki ko fi jëlee mënoon na laa yóbbu wala nga am foo ko dégg wala nga toog ba ci yàgg am luy metti ci yow te am na ci kooku dénk koo xam ne looloo ko yóbbu am na lu la yaram buy wax ne cocc wér ni ab dërëm loolee néew na ko ko yàlla baaxee léeg-léeg nga am lu yëg loo yëg ci sa yaram te yàlla bu ko neexoon mu def ko bunt boo xam ne ca la lay jaaree yóbbi am na koo xam ne bi muy dem dara dalu ko sax gis nañ ko génn tàggoo këram maa ngi dem te ñëw ñu xëy woo kër gi ne waa ji wuy na borom kon bis la boo xam ne ku di nit war nga ko bàyyi xel te kéemaane gim kéemaane mooy doo ko bokk ak kenn gis nga kiy sukuraat li muy yëg moom moo ko yëg ki bi ci bàmmeelam dama fay dund moom moo ko yëg kon ku dox sa diggante ak sa borom ba gàllankoor la ba cër war nga war a jox sa borom joxoo ko ko na ko war a toppee na ko war a jaamoo defoo ko ba yooyee dikk di ko rëccu wala sëñ Tuubaa dénkoon ñu ci kunkaati man ne laa taxtari dunia bi oxra yaa man baa am nuuran bi jaa fa sa yandam bul jël mukk sa dund àdduna gii nga jëndee ko sa dunduk àllaaxira bul jël leer mukk jaay ko ngir jënd lëndëm te neex naa gis te bari na loolu ñu ko def ñi ko def sax ëpp ñu ko deful koo xam ne li muy daw suba ngoon guddeeg bëccëg dafay dajaleel àdduna te xam nga loolu ku yeewu doo ko def dajaleel kër goo xam ne yàgg yàgg nga wan ko ginnaaw ak ki nga xam ne dafay kër kër yi dajaleel kër goo xam ne yàgg yàgg daf koy fekk ñaar ñi ku gën a yeewu te tey ki bàyyi xel àllaaxiraam di ko dawal suba ngoon guddeeg bëccëg dañuy jàpp ne mooy dof bi sax yeewul bëggul lu baax bëggul dara fekk ne moom moo bëgg dara gis nga ki bëgg dara piir mooy ki wuti yàlla ki bëggul dara piir mooy ki wuti leneen lu dul yàlla ndax li muy wuti amul yàllaay ki am te boo jàngal xool gis ko yàllaa ne kullu man alayha faanin wa yabqa wajhu rabbika zu jalaali wal ikraam yàlla nee na bisa ngi ñëw boo xam ne lu dul yàlla dana jeex bu ñu yeggee ci bis bi nga xam ne lu dul yàlla dafay jeex te yow la nga wuti woon du yàlla ndax am nga dara moo tax woykat ba ne lu waaye am te du yàlla amoo dara ku am yàlla mën a ñàkkoo dara tey nag taxut muy wax ndax ki dajalee alal dajalay kër ak ki soxna yooyu bu ko neexee tiitaroo ko waaye bisa ngi ñëw boo xam ne mun a cundum foo xam ne kër du ko fa fekk soxla du ko fa fekk compte bancaire du ko fa fekk lenn képp ko fa mën a jëriñ muy yàlla yàlla na ko fa yóbbu bu ko fa yóbbu nu muy def te moo ne mag ñi ak yonent bi ak alquran saa su nekk ñi ngi jës bu nit ki ngir bàyyi la ko xel bis boobu de waaye nit ne insaan innal insaan li rabbihi lakanuur lu doy waar a diggante ak borom te li ko boromam defal defalu ko benn mbindeefam nit li ko yàlla may li ko yàlla baaxee mooy àdduna bii rek réew moo dem ay mbindeefi yàlla yu baree bari ñoo fa daje waaye borom réew mi nit lay doon du nekk keneen ku dul nit muy bu yéeme boo duggee ci biir kër gi nit xoolal xeeti mbindeef yi mu fa yilif léegi nga gis ku nekk ci biir néeg sax mbóotu ko fay la jël mu génne ko néeg mel ni moomam néeg bi te bokk moom mbóot mi ñoo bokk borom léegi nga gis ku ci puudar sax suy ko ci ngir ñoom ñu dee moom dundam gën a neex te yéen ñaar yéen a bokk borom tabaski bii ñu weesu yaayu jàmbur wala baayu jàmbur wala koo xam ne ak saa ci biir njabootam nga koy fekk jàpp tëral ren di ngir dundal sa njaboot yow kan la may cër bii yàlla suñu borom subhanahu wa taala kenn mayu la ko ku dul yàlla kooku sëñ Tuubaa ko taxaw de. jërëjëf Serigne Touba. yàlla waaye fan la ko feeñu ci sëriñ bi moo tax daf ko wax tegtal ya fa moom sëriñ bi wax ko la fa moom moo xam ne gis na ka ko moom kan moom maam Serigne Fall yàlla fan la ko gisee ci sëñ Tuubaa lan ko doon defal lépp yàlla jee tax waaye du jëmmi sëñ bi rek de yàlla ji ci biir sëriñ bi te xam na ne liggéeyal sëriñ bay tax mu jot ca moo tax mu toog bis ne sës rek. سجبين سجبين ايا لا بجامعه جلين نقفه جلين نقفه دفع افور يوحنا اكون اغوحنا يلا كدا تموني نون لن يطبق سرين بيا لنا كتمو وين سعد المقدور او ساحك المنى الى شيخ حق في الحق قد باريو فقم في هواه وتبه لمراده وده كل ما من قبل كنت تسعني suñ tubaab ne boo demee ci sëriñ boo xam ne dafa raw ci wàllu xaqiqa ku àgg ci yàlla mën caa àggalee ku xam yàlla la mën koo xamle sëñ tubaab nee na nga taxaw ci lépp lu mu bëgg taxaw ci lépp lu mu bëgg nag mooy sëriñ boo xam ne dafay jeex tàkk ci yàlla ba li mu bëgg mooy li yàlla bëgg bokk la ki desee jeex mën na laa teg ci loo xam ne bànneexu bakkanam a ca ne boo ca jeexee ci ku bànneex ku jeex ci bàkkanam nga bakkanam nga jeex misaal bi ñu ciy joxe mooy benn sëriñ dafa jël pañe jox ko taalibeem ne ko demal witil ma ndox ci dex bi xam nga pañe boo ko soolee ci dex boo sippee mu siit koo jox pañe ne ko indil ma ndox donc koo na ma sonnal te bëgg koo gàntal bu demee sipp mu fees jàll mu yëkk ci daw gaaw ñëw lu indi dara balaa yegg si mu siit ba jeex mu ne ko indil ndox mu demati ñëw mu ne ko xam naa ne doo indi dara waaye li ma la bëgg a jàngal mooy taalibe noonu la war a mel ci sëriñam mooy paje bi li fekk mu ngi jeex ci biir géej gi di fees jàll waaye bu génnee siit ba jeex tàkk mu koy jàngal ne ko taalibe noonu la war a jeexee ci sëriñam ma ne yàlla na fekk sëriñ ba jeexee noonu ci yàlla kon boo jeexee ci moom ci koo jeex ci yàlla nga jeex bi waaye ci jeex ci sëriñ boo xam ne jeexut ci yàlla ah musiba lay jur musiba leen jur musiba googu nag sëñ Tuubaa bëggut moom mu tax loolee am moo tax mu yee ñëpp ci lan lañ war a toppee sëñ waxta birir rijal la xam la suux ba wala tu saaxib humran aw sa rax ba balaa nga ànd ak kenn nattu ko xool ba xam waajal wala du waaj bu dee waajal diir bu gàtt rek ku la xamoon démb bu la xoolee tey dana xam ne waa ji am na lu ci mbir te tey mën naa tey xel tey dimension bi ñuy ñor di ci Sëriñ Tuubaa ak mbaax bi ñu koy askan tam nekk ci moom ak njub gépp defaru gi waaye xoolal résultat bi mu jur làmb ji boo ci génnewoon murit yi wëy meeg fecc meeg caaxaan bi ci tele boo ci génnewoon ñi di murit ndax dana amati solo kon mbaaxut sëñ bi moom ndax mi nga rogalaat ci taalib bi kon am na fu mu paane mooy mbaax bi ci sëriñ bi dafa am ci ko muy ci kooku jàllale ko ba mu si ci yow kon bu ñu demee ba taalibe yi feccale ay làmb ak i caaxaan ak i mooy yàlla sëriñ si fan waroon teg seen tànk teguñu ko ndax koo ci gis ci caaxaan gi rek am na sëriñ ba muy tudd bu fekkoon sëriñ ba mat na sëriñ bu ko fa déggee keroog la ko fay mujjee dégg wala ñu tàggoo ñoom ñaar sëñ Tuubaa ni la meloon dëgg la am na ku ko nuyu ne mbëru làmb la sëñ Tuubaa ko noo def ak mbër mi daane ñi tëdd fële joxoon ko almeer yi toog na bis ci njaareem dégg ay tëgg mu ne loolu la la ñu ne ko dañuy làmb sëñ Tuubaa ne duñ daj dara duñ daj dara duñ daj dara du foofu la ñuy dajee kon tey bu demee ba ay murid di fettali foofa feebar am na jàngoro am na te naka jekk nit la baaxoo demee sëriñ su ma tee sëriñ la ca moom ba tax nga topp ko lay def ci yow ba nga yëg boo demee ci sëriñ daara bi looloo fa ne boo demee ci jàngali fekk looloo fa ne boo demee ci tarixa bi nag fa lay paan man maay baax sama doom baax sëtam baax ñun nag doon dooni bi ba faw lii nag suñ tuwaa ko fi bàyyi maam Cheikh Fall mii buntu yoon bi Fall la sant bokk nag sëñ Tuubaa maam maaram waaye moo jiitu ci sëriñ bi dana ko ko may pas-pas sëriñ su ma tee sëriñ ku indi pas-pas jëlee fa dara waaye lii xew tey li ci ëpp aada la waaye du lislaam moom aada mooy ma dem sama doom toog ma dem sama doom loolu aada la yàlla jël na doom yu yonent tàbbal sawara jël na soxna yu tàbbal sawara jël na baay yu tàbbal sawara te yonent ñoo gën ci li yàlla bind kon askanoo ci aw deret ndax tax naa gën tax te gën di te boo demee ci naw ju gii rek naw ju xadaal xaaj gis ko Sëñ Tuubaa wax fa innama tafawutal wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira laa binti bii nit ki limuy gëné moy ci xam xam ak ci diiné ta loolu mo dëpp alquran inna akramakum indallahi atqakum ka gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ragal yalla ndax sant la ragal yalla ndax askan la ragal yalla xol la bu wex tal bo xamné do ci fekk reuy do ci fekk kiñaan do ci fekk soxor do ci fekk bokal yalla lolé na kuñ ya yak mom fo dem and ak mom xol bu défarul borom mën ta woyof xol bu défarul borom mën ta ñak bokal yalla amna bo xamné buy génn sax fàttee ndombaam jàpp ne dara lu baax ana yàlla te sëñ Tuubaa min gëm ñun lan la waxoon am nafu wa durru min arrahmani laysa min al bidaani wa sudaani njëriñ ak lor nekkul ci der bu weex nekkul ci der bu ñuul ci yàlla suñu borom képp lay bàyyi ko te boo yaakaar ne ndomba yi mën na dara yàlla feeñu la ci rek ba léegi mu lakk la moom mënul dara ki mën mooy suñu borom boo ko wóoloo te bàyyi ko seen biir rek mu téye ko te bu la ko téyelee dootul yàqu wa man yatawakkal ala llaahi fa na ku ma dénk ay mbiram ma téyel ko te danaa ko doy sëkk ay boo yëgut yàlla yeggoo ci yàlla xamoo yàlla nu la yàlla ay jaarale du mën a am ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin di nuyu mbooloo mi ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. di leen nuyoo ci turu sëriñ bi. di leen jottali ak ziyaaraam ak ñaanam. di ko jaare ci ki nga xam ne moo sabab bi mooy Mourtala. di sant mbokki taalibe yi ci teewaay bi di sant mbokki dëkkandoo yi ak am ni jàmm yi di nuyuwaale kilifa yi nga xam ne ñu ngi teew ci jotaay bi xaar yi nga tudd ko léegi ñu ngi leen bu baax di leen jot nuyoo sëriñ bi garde yi nag du ci bari ndax guddi dafa noppi te it li ëpp ci nit ñi dañuy nekk ci ay yitte te mel na ni liñ fi yëkkati te bés bi tax koo jóg la ko tàmbalee ci timis ba léegi luñ ci yemoon mu doy bu jëmm yi daje woon saafonte rek gisante demmeeku wante ñibbiwaat seen kër yi mu doy bu mu daje woon jàng xasaayit yëkkati ko yem ca mu doy bu mu daje woon zikrullaahi yëkkati ko yem kon lu ñu defati rek ndollal la su ko defee rek di sotti foo xam ne du fees kon moo tax gàttal bu ca wóorul lo rek la kàddu jib yi mat la sëkk doy na ñaaxe ak yeete te yeete rek lañ soxla moo tax ma ne duñ ci guddal sonni rek ak tënk lañ ci def ndax bi da lambo ñaari xaar ki ak zaaxir gi mën nañ ni mooy anniversaire layal lu ko saxal moo gën a yey layal lu ko dàq baatin gi mooy li ñu dajale ba tax ñu te mooy laa ilaha illallah zaaxir gi sant yàlla la te nit saa su ne daa war di sant boromam sant yàlla nag nekkul ci wax alhamdulilah rek waaye ay xeet la borom alal mu ngi sante yàlla ci séddale ak jaam yi séddal koog jaam yi waaye ci wax alhamdulilah borom doole mu ngi sante yàlla ci dimbali ñu néew doole waaye du sante yàlla ci alhamdulilah borom daraja mu ngi sante yàlla ci bañ a noot ak bañ leen toroxal ak bañ leen jëriñoo waaye mu ngi sante yàlla ci xëy jëriñ nit ku yàlla jox ay warwaay doo sante yàlla ci alhamdulilah waaye dangay sante yàlla xool ñi amul warwaay te bëgg a dem nga jéem yu yóbbaale kon buñ nee lii ak cant la kon wér na ndax dundut daa a bàyyi xel lool alalu yàlla la xalaqal mawta wal xayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan loolu waxu yàlla te dafa am fu mu ko jëlee nga yàlla bi muy bind nit dafa bind aadama amul ndey amul baay mënoon na ko bindee ku ne sañ àgg na fa xam-xamam àgg na fa dooleem àgg na fa waaye daf ko neex mu jaaree ko feneen amul ndey amul baay mu bind xawaa mu am baay te amul ndey mu bind Isa mu am ndey te amul baay mu bind Muhammad alayhi salaam mu am ndey am baay gis nga loola mbir la gis nga loola ñoo ñeent ko ñu àddina yi tekkiwul ay nit ñu sàkk waaye ni yàlla sàkkee aalam bi muy kawlu bi ci ñeent ko yooyu lañ ko tënk da ngay fekk li ñu tuddee ci sëriñ si yàlla may xam-xamu baatin da ngay dégg ñu naan la tura yu xawaa yu maa yu ak lu yàlla bind lu ne ñeenti yooyu am nañ cër ci yow turaabiyu mooy ci suuf nga jógee maa iyu mooy lu jógee ci ndox xawaa iyu mooy lu jógee ci ngelaw naari iyu mooy lu jógee ci safara am na ay nit ñoo xam ne seen a safara la am na ay nit ñoo xam ne seen tabia ndox la na ay nit ñoo xam ne seen tabia suuf la ñooñu ñoo fi ne loolu ci xikmay suñu borom waaye mu jël sàkku nit jaare ko ci ndox min sulaalatin min maa in mahin jaare ko ci ndox ba ko jaaree ci ndox mu jaare ko ci ay étape tabaqan an tabaq gis nga bi nit amee ñetti ñeent fukki fan ci biiru yaayam ñetti ñeent fukki fan mooy ñeenti weer moo tax foofa boo avorté da ngaa rey nit ndax foofu la nit di doonee nit yàlla nee na wala yonent bi nee na bu nit amee ñetti ñeent fukki fan ci biiru yaayam yàlla day yónni benn malaaka boo xam ne mooy ñëw mu joxaale ko ruux gi moo tax def ndànk am na solo lool ki ëmb def ndànk am na solo lool waaye ki seqal yi def ndànkit am na solo lool ndax li leen yàlla jox ak fi mu war jaar te seen jëflante lay génn ci ñoom jeexital ba lay doon gis nga kii tux cigarette bu juree doom mu def jeexital ci moom kii naan sàngara bu juree doom mu jeexital ci moom waaye ku bu juree doom mu def jeexital ci moom kuy lekk lu xaraam bu juree doom mu def jeexital ci moom kuy lekk lu dagan juree doom mu def jeexital ci moom moo tax du ay fo su ko defee nag foofu nag bu malaaka bi ñëwee yàlla daf koy jox ruux gi mu ànd ak ñeenti yëf mooy fan yi mu war a dund ñaata fan la war a dund jox ko jëf yi mu war a jëf lu mu fi war a def muy bët yi la mu war a xool nopp yi la mu war a dégg tànk yi la mu war a dox gis nga ñoo xam ne seen tànk ñooy njëkk a taxaw seen bët gis nga ñu seen nopp di njëkk a taxaw seen bët loola dara la waaye li nit war a def yépp ca lañ koy mooñaale wërsëg bi mu war a am ñaata la war a am ci million dana ko am wala du ko am ak fan la koy amee malaaka bi moo ñaale ko day texe wala day texe di loolu mooy ñeenteel bi mu mooñee ko bu naree texe daf koy àndaale bu narta texe yàlla dogal na ko bu yàgg la muy def texem ak texe dem sukkandi yàlla sukkandiku ci ndax ba muy bind safara ak àjjana tàgguwuñu te booba tooñaguñ ko ñi dugg aljana ba leen yàlla duggal aljana ba ma jaamoo ko yàlla ñay dugg safara ba ñuy dugg safara boobu moye ko yàlla kon moo tax yàlla ma taragal lool waaye boo naree dugg aljana daf lay jëfloo jëf waa aljana boo naree dugg safara daf lay jëfloo jëf waa safara ca la ñu xamee ni kii aljana la jëm xel yi dal ci wala ñu xamee ni kii safaan ba la jëm ñu ñaaw ci ñort foofa nag ruux di des ba am na ñu ne dana génnaat am na ñu ne du génnaat Takessa ba nit judd dim juddo yalla waxat ci ay wax wax ma len def ngend di ay ndaw moy tiflam ma len def ngend ndaw ma bindee len ci ñak katan mi dem ba ci yag ma def ci yeen katan mi dem ba ci yag ma wat len ñak katan am ño xam dama len def magget sen bop yi weextaan am ño xam dama len di ray sax lu jitu loola am na ño xam ne danañ àgg foo xam ne dem ba dootuñ xamati dara ci luñu mësa jaar te bobu ñu ngi dund yàlla nee na loolu moo ko def moom da wax ci alxuraan ak ndaw na da ca am solo lool mooy jamonoy mbay mooy jamonoy mbay yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñeenti laaj nii nee na balaay benn nit di buuse yowmal xiyaam nee na laaj dana ko tontu fii umrihi fii maa abla an umrihi fii maa abla sa dund gi ci loo ko dépensé nee balaa ngay bougé yowmal xiyaam loolu moom danañ la ko laaj sa dund gi ci loo ko dépensé wa an shababihi fii ma ana sa ndaw li ci loo ko defoon ndaw solo lool moo bi mu jëlee ndaw gi la ci génne sa ndaw ci loo ko defoon ndax mooy garanti sama ndax li ci ëpp bu am ndaw yàqoo rek mag yàqu wa ilmihi bima amila bihi ak xam-xam bi la yàlla joxoon ci loo ko jëfee ak alal yi la yàlla joxoon ci loo ko dépensé ñeenti laaj yii yonent bi nee na ku ne balaa ngaa buuse danga ko tontu su ko defee nag ndaw da ci am solo lool mu mel ni jamono nawet war a béy tool ku béy te béy na nga war a béyee bu góob jotee rek da nga teel ku béyul béyoo na nga war a béyee wala fa nga war a béyee hakaza bu góob jotee rek doo góob dara te su boobaa da nga tumaraange ak ndaw la ma nga tàmbalee ba nga juddoo ba ngay am ñeent fukki at tant que amagoo ñeent fukki at ak ndaw فلما بلغ أشده وبلغ أربعين loolu alxuraan wax فلما بلغ أشده bi nit demee ba toll ci li ñuy tuddee al ashab al ashab mooy fi nga tollee ci sa digg doole wa ballagha arbaina sanna mu toll nag ci ñeent fukki at motax tank tant que fukki at ndaw nga fofu motax it mën nañ la jéggal lu bari waye na fa nga gor a lo nak pour sa ëlëk ñu bëgg na nga sakku ci xam-xam gis nga motax tax koy faral di wax lu bari gis nga hikma na sax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ji bi wax na ko sànq balaa nga julli balaa nga wor da am lu war jitu jiitu loola yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñew rek ne ko julli ñew rek ne ko woor daa am ñeent fukki at ñu déey ko lañ ko déey mu defaat fukki at ñu door ko nak ni jullil wooral kon ñeen fukki ak dara ci la yalla tan ay itam su ko defal motax nak ko dal mu ngoog baatinu bés bi nak moy li ñu dajale tax ngay sant lolu moy la ilaha illallah mbolem lu bax bax na waye la ilaha illallah mo leen de lolu nak Sëñ Tuubaa moko bind leral ko moko bind wéy ko Cheikh Moussa boo ko leer sëñ Tuubaa moo wax ne amma dawaamu zikru fa huwa akbar min kulli ma kaana al-muriidu yuksir sëñ Tuubaa wax ne qad qultu zalika bila israari wala ubali bi zawi inkaar la lay wane ne moo ko leeral gis nga nit ñi dañuy jàng te duñ dégg kenn ci taalibe yi dafa jël kaset buñ firi woon ci ku Jinaan mu yóbbu ko ba daaray kaamil ay doomu sëñ Moustapha Diatara déglu ko bañ ko dégloo ne ko ku def lii mun leen diw sàngam mu ne bañ juddoo ba léegi lii mosuñu koo déggee nii. am ñooy wax ni ko dañ ne ko firiwuñ ko Cheikh Moussa moo ko tax ni ñu ko déggee kenn déggoo ko moo tax la te sëñ Tuubaa wax booy seet moom rek a ca nekk ak ñu mu àndal keneen nekku ci it nag tey kuy wër yoonu murit boo ko jéggee rek dootoo gis yoonu murit wax nga ko sànq day fekk murit bu dof bu tilim ferul baax mu sóot ba bu fóot ba mu set tofal mbooloo borom kon ak murit bu lu ñuy jàng kuy wër sëriñ bi di ko wër ci ay këy sëriñ bi réer na lu mu yàgg kuy wër baatin di ko seet ci xam nga ne mos baatin duñ ko def ci këy luñ defati ci këy rek tuddutul baatin sëñ bi li mu yor buñ ko doon seet ci ay këyit kon ña ko topp duñ ko topp ndax lu ñuul ci këyit xam nañ ko te kon dañuy yem ci alxuraan bu jeex sëñ bi daa yor loo xam ne boo yëree ci alxuraan doo ko gis alquran daf ko tudd waaye do ko fek benen téere daf ko tudd waaye do ko fek waaye dañ lay wax mandarga la nag mandarga la ñaan motax moo tax daan wax naan téere purit la setul kenn mandewul kenn bo lambe dana toy ta dana tek waaye dana tegtale ndox waaye purit la setul kenn mandewul kenn way dana tegtale ndox ndox mi moy la ilaha illallah ndox mi moy xam ya téere yëpp ci bokk yem moo tax Sëñ Tuubaa wax ne maa wax ne tudd yàlla moo gën lu dul moom moo tax li taalibe Cheikh ne tudd yàlla moo gën julli moo gën woor lu Sëñ Tuubaa bind la murid yaakaarul julli murid yaakaarul woor murid daa yaakaar borom woor bu nekkoon jullee ko woor du toppi Sëñ Bàmba ndax mënoon na ko laataam dem Sëñ Bàmba dañuy toppee sëriñ du jullee ko woor moo tax nag sëñ bi de sama baat ca kaw waxuma ko naan lu sëñ Tuubaa ko naan faale moo ko ma tawétdi war nañ xam ne rëy na du lu tuuti loolu dara la de loolu ko ko wax coow topp tax Cheikh Moussa coow ko sëñ bii li tax mu leeral tudd yàlla gën lu dul moom te kuy dem ci yàlla la wax nag ku demul ci yàlla demoo ci yàlla lu la jàpp bu la neexee nga yem ca ndax kum neex nga yem ci julli yem ci woor te doo am sëriñ te kenn mënu laa génne ci biir julli waaye kuy am sëriñ nag sëriñ bi daf lay defal loo xam ne doo ko jëlee ci julli doo ko jëlee ci koor boo ko xoolee gis ko boo ko làmbee ko bu loolu mënta nekk nag nga bàyyi ko fa te dem jëm ci jullee bu war sëñ Tuubaa moo ne in lam tulaaqi muslihan fal taktafi bi ma bixi nasa xiyaaru salaf fa hiya shariatu nabil mustafa salla musalliman alayhi zulofa sëñ Tuubaa nee na boo mënta daje ku la yóbbu ci yàlla sëñ Tuubaa ne yemal ci julli ak woor ak jàng alxuraan yem ca mu jeex bo dajé ko la mën a ci yalla nga xamni koko mo gën loolu nga jàppoon te téye ko kon loolu mata baye xel te nit ñi xamuñu ko mu demat ba ci bir la tax mo leen tuddi yalla gën te la gën ci tuddi yalla moy la ilaha illallah mu ne wa innahu bidayatu billahi wa tarkuhu nihayatul hawaya tuddi yalla suñu tubaab ku bëgg a nekk wëlliitu ku bëgg nekk wëlliw sëñ Tuubaa nee na fondement bi mooy jàpp tudd yàlla mooy laa ilaaha illallaah mhm. sëñ Tuubaa nee ku beew nga beew mooy bàyyi mhm. mooy def nit amul leneen luy def nit wëlliw dugg loola mu tegaat ci ne innahu gaayatu wa nihaaya ilayhi yantahi zawil hidaaya baatu laa ilaaha illallaah ñu ne ko waaw mu ne gaayatu lu kawe lu ne moo la gën a kawe wan ni xaaye fële mbir yi yam mayu yi ak mbaaxu yàlla yi ak daraja yàlla yi ci laa ilaaha illa la ilay yate zamil hidaaya Sëñ ne koo dégg ne jub na Sëñ Tuubaa ne baatu laa la téye lu mu ci yàlla moo ko ko may njëkkee ci yonent yi la jàppuñu woon leneen la leen def yonent wala la leen def yonent yë wala moo doon laa ilaaha illa llaah moo tax Sëñ Tuubaa wax ne فمن يريد كشف الذي تدمنا يطلق الدنيا تلاقا بينه تكس بلجيت بفنا وان تكن مبتديا فالنفي اولى مع التعظيم يا اقي بك بلا اله الا الله والمتها مقتصر بالله ما تخ مو واخني لولو سي شام سار كوفي كود موم ديكو سنت سنت با داخني بو سو بو تي يوندو غور بوك بوك تي غور ني واخون كي تي بوك تا بوك كوكو جومبال بوك واي كو سنت با نينا دا ngay da ngay dàq di saxal lan ngay dàqee di saxal loolu it na leen lan la ñuy dàq ak lan la ñuy saxal te surtout Sëñ Tuubaa nee na ñu ngi dàqee ak di saxal ci baatu laa ilaaha illallaah Sëñ Tuubaa nag dafa am looy dàq dafa am loo war a saxal waaye loolu nag laa ilaaha illallaah moo ko mën moo tax ngay wuti ji sëriñ bu la xamal yàlla bu dul moom rek doo ko xam te lay wane ne mbóot la mooy lii ñëw ci kanam mu tudd mu ne far man yusuf kasma lesi tadamana yu tadi ko dunya tala xabay da nga koo soxla ñu ne ko waaw mu ne boo ko soxlaa da ngay fase àddina ku bëgg àddina du ko am kuy topp àddina du ko am déedéet fase àddina rek yàlla gën la lu dul moom mooy tax nga am yàlla waaye bëgg lu dul yàlla wala boole yàlla ak leneen nga la wóor yàlla rëcc na bu yàgg yàlla du ko ñuy bokkaale sëñ Tuubaa wax ne teg ca ne asraarahu axfaa min an tuktahu saxifati li kulli zi tasarrufi nee na mbóot yi ma lay wax Sëñ Tuubaa dafa nëbbu ba gën a nëbbooti ba si ko bind ci ay këyit li kulli zi tasarrufin nee na bindkat yëpp ñu dajee woon ne laa ilaha illallah moom lañ bëgg a bind mbóotam Sëñ Tuubaa nee na duñ ko bind moo tax li sëriñ bi yor duñ ko sëgg ci ay téere di ko seet nekku ca ndax Sëñ Tuubaa nee na du lu ñuy bind waaye dañ koy dund rek nag mu teg ca ne kasa wa kashfuna arzarahu laysa yaghuna li si sirrihi bahran hamia Sëñ Tuubaa nee na ñu uññi mbóot mi nag mbóotu laa ilaha illa allah Sëñ Tuubaa nag laysa yaghuna du luñ ko def ci téere bii booba ko Jinaan lay bind ci téere yi njëkk bind la woon te booba ci lay sos yoonu murit pour wane lan mooy yoonu murit ak lu ko tax a te mooy àgg ci yàlla moo tax boo demee ci magu murit dañ koy jël rek li ko doon denc Cheikh Moussa nee na du buñ né ne ko jinan mooy yoonu aljana buñ japp ne duggal ko ci waxal lay moy tax mu doon yoonu aljana yoonu murid la Sëñ Tuubaa def ci xëtéere bi bëgg ñoo wan yoon bi moy lan ak luñ cey wut ak nuñ koy jaaré loolu kon lu ñuy dox la dem sàkku ji ko du lu ñuy tëj ko dañ ci ay waxande ñu dox la ay tektal pour nga dem fenn nga jël tektal dañ ci waxal waxande tane da nga dem te tegtal bala wuru yow du sotti de moo tax Sëñ Tuubaa nag nee na kon duñ ko def ci ay téere lay sa yali huna téere bii may bind duñ ko ci def ñu ne ko lu tax mu ne ni kaw ni sirxi baxran amiq dafa nekk ci géej pare dafa nekk ci xóot-xóotu géej gi ca taatu géej gi moo tax ko def ci ay téere te dañ ko war a xam te moo tax ñuy toppee mu mel ni dañ ko laaj kon bi niñ koy amee mu ne bal annaha tunaalu bil muqaabala da ngay janoo rek ak benn waay boo xam ne moo ko yor te xam ko loolu mooy taalibe ak sëriñ hmm. da ngay nangoo doon taalibe ci kanamu ku ko xam hmm. moo tax sëriñ du ku ne waaye taalibe du ko ne xeetu taalibe yi bari nañ waaye xeetu sëriñ yi bari nañ waaye sëriñ buy yóbbu ci yàlla ak taalibe buy laaj yàlla loola tey moom amatul hmm. wala jafe na lool réew mi tey boo koy seet da nga naan sëriñ amatul ni mer rek gis nga li fi am yëpp te jaaduwul sëriñ si la neex li am ci réew mi te jaaduwul sëriñ si ndax bu leen neexoon tey mu arrêté ni ñuy solo ñaawteef gi ñu sàngara bi ñu fiy jaay li ñuy def lépp te neexul yàlla bu sëriñ fi taxawoon tey ne nguur gi bu mu fi amati dootu fi am am nañu responsabilité bu rëy te seen responsabilité nag doxatuñ ko. dëgg la doxatuñ ko de. waaw waaw. maam Abdou Aziz keroog fecc boobu ñuy wax lambada bi mu amee ba coow li mu lëmbee dëkk bi yëpp benn waaye mu ngi koy mas na la ko nettee nee nañ ba mu ko yëgee la taal otom guddi googu départ Tiwaawan daal di jubali pare mu ngi fa yegg si 11h ci guddi ñëw ci gàdd bi ne ko Abdou Diouf laa soxla mu ne ko Abdou Diouf tëdd na mu ne ko di ko yee mu ne ko tëdd na mu ne ko di ko yee ndax li ma teree nelaw dana ko teree nelaw mu ne ko lumu mu ne ko yee mu yee ko mu ñëw mu ne ko sëriñ bi lu la doon say tànk guddi na de mu ko li ma teree nelaw dana teree nelaw mu ne ko lumu mu ne fecc bi may dégg ci dëkk bi laa bëgg mu dakk mu ne ko dakk na tey boobu la dakk waaye ba mu koy wax xaj ca misaalu bàyyi laat ba mu dugalee xaj yaag gendarmerie biir Touba ñu ne moo ko fi dugal kenn mësu ko fee dugal mu ne xaja yi mu xam borom mi xaja dëgg kon sëriñ si am nañu responsabilité te mel na ni doxatuñ ko kon nag man la bàyyi xel bu baax moo tax kon nag buñ leen sëriñ kon mooy ku la war a mën a yóbbu ci yàlla li ci des nag aada moo fi toogoon wala maam moo fi toogoon wala bàyyi ma fi toogoon loolu aada kesaar kooku moo doon alalu sëriñ bi moo doon këru sëriñ bi ak otoog sëriñ bi waaye xam-xamu sëriñ bi taalibeeg sëriñ bee ko doon su ko defee nag moo tax mu ne bi taslimin wal mu jaaxle ak jihaar ak ndax foog yi daa bari lool te diine tey folklore gis nga li ëpp ci cant yi folklore la sëñ bi nee na buñ ca dajee dañ lay wax sama maam sama baay sama maam sama mbaay nee na foo war a dem yow ak loo war a def dañ lay wax ci sëriñ bi ba nga yéemu sax ba jàpp na yow waratoo def dara sëriñ bi def na dara waaye yow loo def nag ak wala loo war a def moom wala da ngaa war def ah dañ seet rek moom de rasulaay def na waaye tere ma koo def de rasulaay jàll de waaye tere ma koo jàll de bu demoon rasulaay baax na yem ca wala defal nañu lépp wala julli nañu mbaa waroon ñu kon duñ toppi sëriñ bi daa xool fa rasulallah jaar fu mu deug tànkam mu deug fa tànkam lu mu jemon xam mu jëm ko xam fu mu jaar mu jaar fa ba buñ ne rasul xaadi ne rasul ya khadim ak qadim qadim xaaf gi yàlla ni ko waxe sank waye khadim ak qadim bokkuñu qadim a gën a rey allamani rahmaanu fi safina bi annani qadim waxul xaadimu daf na xaddiimu zil madina mo gëna for qadim xaadimu mën ku nekk mën na koo doon waaye xaddiimu nag mooy solo si bi ànd na nii ni xaddiimu zil madina kon loolay solo si kon nag laa bi munaakara wal mubaaxada werante amu ci sore amu ci sëriñ da ngay dëkk ak moom yaa ngi nettali waa ji ñëwoon ci suñ tubaab pour mu defar ko mu ne ko foo féetee mu wax ko ne ko fa ma féetee sëñ Balla Faale fa ne mu ne ko demal ci kooku defar naa ko ndax defar taxoo la laaj kon moo tax defar nit daa laaj jot waaye defar nit daa laaj taxaw moo tax nag gëj a gis sa sëriñ wóorul ñàkk a gis sa sëriñ wóorul taalibe bu gëj a gis sa sëriñ baa nga yàgg gis sëriñ yaa ngi ci erreur bu rëy ndax ko lay jox xam-xam te xam-xam ca nga war dund am ci àddina am ca laaxira ah kooku bu la rëccee nag bu dul wax ak lépp rëcc na lii mooy baatinu bés bi lii la Cheikh Moussa yëkkati sëñ Tuubaa bind ko mu leeral ko nu ko kenn leeralewul xam ko nu ko kenn xamlewul jaare ca nu ca kenn jaaree te ku raw looloo tax nga raw kon nag yan nañu yàgg yan nañu yàgg di màggal bés bi ni ko Papa Assane waxee woon gudd fan lool wér lool waaye foo gestoo nag daje ñun salaamaaleykum wa rahmatullah أنت أشرف العلماء ويشرح الرزاق وأشرف وتشرح وتهدنا فيما تشاء وتشاء إليك ما شاء الله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على ما شاء الله Thank you.